léegi ci joomaay pour liggéey ak moom ci jamono yoo xam ne ñu ngi naan lépp lu jëm ci wàllu instance su parti Pastef séparation de pouvoir bi ñuy soxla ci yenn institution yi kii di joomaay daanaka lam ci promesse daanaka dafa taxaw ngir jëmmal ko te moo di ni li ñu doon xeex ci président Macky Sall chef de partie nekk chef de l'État ku la attaqué ci en tant que politique homme politique nga làqatu ci mbubum chef de l'État pour rëq ndigam tey euh, joomaay taxaw pour dindi loolu. loolu lépp ñuy wax dañuy wax donc digg saane la

dañu leen a yónni yàkkamti leen te xam nañu ni dañu leen a yónni. mais jomaay du nangu Sénégal yi gën koo gore yow gis na Sénégal yi dimanche bi passé anam gi ñu voté. gis na ko. Ah. mais loolu loolu loolu jomaay ak Sonko du ñu nangu mukk Sénégal yi gën leen a gore doonte woon ni nag ñoom itam li ñu subir lépp ci ay coono ak ay métit ak ay souffrance sénégalais yi nekk ci jàmm moo tax ñu dund ko kon kay ki bëgg fu mu fanaan ak ki bëgg ku ko wéttali tëjël bunt bi du leen boole mais il faut que nous mooy ñu Nous liggéey ak intelligence ñoom itam ñu takku nangoo liggéey ci tool yi nekk ci waar wi ñu nangoo liggéey nekk ci waar je vais te dire une chose xoolal bi gouvernement bu Sénégal ci temps Macky bi ñu ne dañu bëgg a jël benn pourcentage bu am solo ci mobilier bureau yi ñu jox ko artisan sénégalais am ay benn benn artisan yu gagné marché bi ndax fi ñu de métier ak seen niveau ak entreprise bi ñu passé commande bi non seulement respecté wuñu délai bi mais ay importé la ñu indi loolu mooy sénégalais. du fabrication locale. déedéet ay importé la ñu indi te respecté wuñu date bi loolu mooy sénégalais jikko bu bon moo jëkk a sasu ñoom Ousmane Sonko te toujours damay wax ni affaire bi du sasu Ousmane Sonko du sasu Bassirou Djimaye Faye du Bassirou du sasu Birame Souleye Diop du sasu Abdourahmane Diouf du sasu Aïda Mbodj du sasu Habib Sy du sasu Cheikh Tidiane Dièye xoolal sasu Sénégal yépp yi gëmoon projet bi la yow fexel ba lu ñaaw buñ la ci fekk lu bon buñ la ci fekk lu matadi buñ la ci fekk fexel ba bul def lu ñuy mën a potax ndollu ci yow pour yàpp sa leader yow boo xëyee fexel ba bul may sa bopp temps booy nekk ci mbedd yi di wax. Mhm. fexel boo boo xëyee nga wane yow vrai patriote nga nga dem yi xoolal nga dem liggéeyi yi loolu mooy dëgg. Mhm. loolu boo ci nekkee kenn du jaar ci yow pour yàpp sa kilifa ñun foofu lay woo les patriotes pas nit di téesante di tontuwaatante bu est-ce que xam nga Pastef bi ñu koy soog sos la moo nekkoon seen hmm. Hmm. première année bi ñu créé pasteur bépp dëkk région département bu Sénégal pasteur amoon na fa toll bépp département bu nekkoon Sénégal pasteur amoon na fa toll gars di dox ay kilomètres pour dem bay ci toolu Pastef ressemblé nañu leen nañu gis nañu seen leader mais wane nañu yoon je vais te dire ma wax la benn anecdote bi ma xamee Ousmane Sonko beneen nit la beneen dimension la am am na ci benn tool boo xam ne waa Pastef ñoo ko amoon Kër Sonko tool boobu bi ñu nee Ousmane Sonko fee mooy kër ñoom Mansour Diop mais dégg naa papaam dafa gaañu woon dañu bala moo laaj benn ñax day dem jàll ji ñu ba xam nga benn ngi mais waxuma sax loolu intéressé ñu waxaat ci leneen ki jox la un patriote bu nekk à l'étranger jënd tool ni booy passé fi jël leen ko bay ñi Sénégal. Hmm. doon bay tool ba. ñu musta bay la ñuy doxee Kër douze kilomètres pour bay si toolu Pastef boobu laa leen ni li ñuy woote bu dugg bu réew mi duggee seen loxo. Mhm. Sénégalais yëpp doon ay jàmbaar. ki leen jox tool bi Suisse la ñi ko doon bay ville la ñu dem ba foofu. Ousmane Sonko fu Pastef nek dem na fa yenn fa ak ñoom di bay ba ngoon jot bu demee fa tool ba nekk dina fexe xamanteeg waa dëkk ba ku fa am xew bànneex mu dugg fa ku fa am xew naqar mu fa mu ba ce qui est di pas les patriotes parce que les amul. Mhm. boy boy du fa la ko de. <laughs> vous les patriotes pour sagal leader. Mhm. et un bon exemple. il faut reprendre reprendre même système parce que tay bu vous ni yow patriote nga sa xel dara dara wala ñu utal le poste wala nga positionné yaa ngi delloo système bu vous ba yaa ngi toppandoo APR ak wa PDS ak lo am am jang vous nga exploiter ko ci na nga sosé won parti bi leen ay vous Moussa nañu out ay tol nañu xol ay promoteur ay investisseur, ay millionnaires ou ay milliardaires yu reprendre dag ndaw yi dem liggéey waxuma Sénégal bay dundé de Sénégal di dundé limi bay ñaar yu bokkul la bay dunde ak di dunde li ngay bay du benn bu fekkente ni li nga li ngay bay moom ngay dundee waaye Moussa am rupture parce que boo amee rupture dootoo lekk mhm. foofu la ne pas bay dunde bu fekkee da ngay bay dunde mun bay bay jaay mhm. alternative am mais bu fekkee li ngay bay ngay dunde di nga am ay xeetu plat yu bokkul yu bëree bëree bëree bëri ne riche li ñuy imposé. Moussa mhm mënoo am plus de cent mille tonnes mboq ci Sénégal ba noppi di importer 1 million de tonnes ceeb te sa mboq jeexul mënuñu ñoo yóbbu ci benn complexe boo xamante ni Baye Moussa mboq mi dañ ko jagleel xar yi ak fas yi alors boo demee ci supermarché yi jënd fa mboq ñu def ko ci ay mbuus cest à ñun ñun dañu am problème ak suñu bopp boo gisee mboq bi nekk ci saako xalifa mhm. da ngay foog dañ koy jox fas ak nag effectivement foofu lañ ko foofu la ko Sénégal bi qualifier lañ koy classé. Mhm. alors bu demee ci supermarché bi mboq boobu la ñuy jël feja ko ba mu nekk sànqal. Hmm. mu jënd ko pour togg ko moom lekk ko. complexe. c'est complexe parce que diggante bi dafa am lu fa nekk te nekk fa. Jomaay wax na ci benn discours am muy fexe industrialiser diggante bu fa am faay yi. Mhm. très lay nekk parce que amuñu. transformatrice bu mën a transformer quantité bi ñu soxla et bu ñu ko bon ba aussi mu des ci côté consommation amaguñu ay spécialiste ci wàllu cuisine yu mën a créer sénégalais ay xeetu palaat yoo xam duñ ci am complexe c'est ça. Mm-hmm. c'est-à-dire ñun fokk ñu nekk ay patriotes. Mm-hmm. moo tax man ni gars yi delluwaat leen ca tool ya comme ni ngeen ko defee woon dellu leen ci élevage bi dellu leen ci njënd ak njaay bi. Mm-hmm. delluwaat leen ci pour mën koo sagale ñi tay la seen ñàq pour yéen politique APR dafa amaat de léegi nag waxkat yi ñu foog dañuy ñëw ruube Sonko euh, euh, nu mu tudd Diomaye mm-hmm. nax nañu seen bopp mm-hmm. xoola nax nañu seen bopp nañuy toog di jéem a ruube rek nit ñi taluñu leen sax la wax mm-hmm. man de man de naa joxe exemple man man personnellement man waxoon naa leen ni leen man bu Amadou Ba au Sénégal Baye Moussa ma baye métier bi. billahi ci ba légui mais Amadou Ba wul aw ma xaalis pour def investissement damay mais li côté secteur primaire dina ci pôle. def pôle agriculture élevage ay ndaw ci uniquement pour mu sama participation ci le patriotisme pour ndaw lu mën dégager ci complexe. je vais te je vais t'expliquer une anecdote euh, Khalifa. Mhm. sa chaîne bii ngay émettre ni Al Irshad mhm. bi Bini créé MMD Média. Mhm. xamuñu woon sax dina un problème. xam nga lu taxoon ma créé ma créé woon chaîne bi. uniquement pour tabaxal ko benn studio ci àll ba ca tool ya.

defar ci ay terre yu mu defaree xobu màng Sénégalais bi jël ko consommé waat ko sans complexe Khalifa am ci khalis am ci liguey yoyu idée yoyu mo taxone ñu créer Al Irshad TV bii nii parce que Al Irshad en arabe mo tudd l'orientation. Mm-hmm. orientation loolu mo nekkoon objectif bi gis nga fi fii la mujj après bi ñu amee ay quelques difficultés ak MMD media ñu doxal ko mais loolu mo nekkoon objectif mo ma expliquer la loolu. Mm-hmm. te jogé wu ma ci dé pour wone sama patriotisme ñi xamné ne am yeen bu man duma légui nga dégg nga la khalifa bu may ci agriculture aviculture élevage. Hmm. waaw waaw inshallah ba. bu kenn ku nekk defee vous yóbbaale ñaari nit bu kenn ku nekk ñaari nit kenn fu nekk di mel di Sonko ak les base

ak sax saa wa muhibbul ixtisaar ñu ànd dañu ànd yu dox ki bari wax ki feebar bi mu feebaree xaw a metti mujj gi mu ni waa ji man daal bu neen suñu waa kër man mënatumaa ñëw de sama bëti day bas sama bakkan yi day xelli sama nopp yi day riir sama tànk yi dafa nagam waa ji ne ko ci gàttal bu ma demee dinaa ne seen waa kër denga ndax yii nga wax man oma jotu expliqué ko seen waa kër oma jot daal dañu dañu daa am na may xaar

voilà c'est important Quand ni euh,